maqaama xaamisa nag foo ko fekk fukaahiya lay doon xam naa waxtaan wu neex la baabu sëriñ feeñ faak fasaxa gaag mën a wax ga ñu mu defal leen waxtaan defal leen ab maye ci biir maye ba ci leen nax su mënuñ ko ñàkk jox dara aka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam hmm. qaal mu ne samartu ngoonaaroon naa hmm. mooy defoon naa waxtaanu mara hmm. bil kuufati ci kuufa nanaa la ci dëkk iraqi la fii laylatin ci guddi goo xam ne addimuha deram doo law nay ni borom melo la hmm. mooy guddi yooyu di jëkkee leer mujj ci lëndëm hmm. mel ni dafa boole weex ak ñuul hmm. wa qamaruha weeram ka taxwiidin ni ki ndombo la min lu jaynin ci xaalis weeru dafa mel ni mooy guddi bopp weer yooyu ci laan doon def samar hmm. maaru xatin ànd ak fetti ànd ak ay àndandoo hmm. yoo xam ne xudoo dundaleef na leen hmm. bi bayaani ci sawi biran ñu doon ñu xam ne ñu man kàddu lañ waaw ñun jàngal lañ te jàngal leen wax waaw xudoo dundaleef na leen bi bayaani ci sawi biran wa saxaaboo te ñu diri hmm. daylal nisyaane mbinjam fàtte hmm. ala saxbaana ci saxbaan waa il hmm. ay gaay yoo xam ne seen fasaaxa ak seen balaaxa tax na buñ waxee dañ fàtte saxbaan waa il saxbaan mu ngi bokk ci ñi dàqa xutba ci arab yi moom ak Quds bnu Saaidata hmm. ak Hani ibnu Abi Talib hmm. ak Hajjaj ibnu Yusuf hmm. ak Zayad ibnu Abi ak gannaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw arab yi nit xamul ku leen di dàqa xutba waaw nit xamul ku leen di dàqa xutba gannaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saabaan waayil xusubnu saidat al iyaadi ñoo ñoom si njëkk lislaam lañ ak ali ibnu abi talib ak ziyad ibnu abi ak ak ak hajjaj ibn yusuf su fekkee ne daa am nañu leen daqa xutba ci arab yi man xaw ma leen daal wàllu xitaaba ci adabul arab yi li ma ci jàng ñuñ daal dara dara bi ma gis ñu jox leen wax dëgg dina ma jox ko bi ma du mu rom kenn ci lenn daal daraja ma gis ñu jox ko keneen wax dëgg yàlla saban waayil dañ da wax ne moo jëkk a wax amma baadu ñu ne moo wax ne laqad alima alxayul yamanuuna anna ida xultu amma baadu anni xatibuha boo demee si adab bi muy bind ci moom hmm. dafa wax ne bokk na ci manoore saxabaan hmm. daan na taxaw xutba xutba bu gudd a gudd hmm. du wax dara waxaat ko du taxaw ci biir maana loolu mbiram la woon manooreem la woon moom nag ni waxe mooy saban waayil ci jamonoy Muawiya ibn Abi Sufyaan hmm. la doon dund hmm. waaye li gën a tasaaroo mooy saban jamonoy jahili anasul jahili ci la doon dund loolu moo gën a tasaaroo hmm. am na it benn xutba bu mu ko faas kanee wax ne saban xutba na ko ci kanam Muawiya waaw ah, mooy inna dunia daaru bala daaru balaaxin hmm. wal axiratu daaru qaraar hmm. fa xudoo min daari mamarrikum hmm. li daari maqarrikum wa axrijoo min addunia qulubakum qabla an taxrujo minha abdanakum comme àgg rek waaw ah, inna dunia daaru balaaxin wal axiratu daaru qaraar ayuha annaas fa xudoo min daari mamarrikum li daari maqarrikum wala tahtiku astarakum inda man la taxfa alayhi asaarukum wa axriju min addunya qulubukum qabla an taxriju minha abdanukum wa fiha hayyitum wa li xayriha xuliqtum inna rajula ida halak yaqulu nnaasu ma tarak wa taqulu lmalaikatu ma qaddam qaddima baadan yakun lakum wala tuxlifu kullan yakun alaykum parce que nee na ko fa waaye xutba bi nag man gis naa ko ci Nahjul Balaaxa sarifu radi askane ko Seydina Ali waaw moo tax xam naa wutee moom ñàkkut bëri na ci mbiram mbiram soxna bëri na wutee daal waaw gis naa ko ci Nahjul Balaaxa sarifu radi di ko askane Ali ibn Abi Talib maa fihim nekkul ci ñoom illaa mandare koo xam ne yu fasu def na mokkal han jële jëlee ci moom ñu ko doon defal samar koo ci gis rek borom xam-xam boo mën a jëlee ci moom dara la wala yu taxa fasu te def wattandeku min fu ci moom te mucc na ci melo yi tax doo bëgg jaxasoo moom waye milu dana jeng arrafiqu xarit ilay jëm ci moom ko ci xaritoo daal lenn rek moo lay métti muy yéex xam ko yéex gi mu yéex a xam bu hmm. sa da gën di kontaan ci ànd ak moom hmm. waaye wala yemilu di jàng xarit xam nga walis ba ca kanam hmm. nga gis ci moom lu tax tu lëngëm loolu amul ci ñoom waaye yemilu dana jàng ar xarit ilay jëm ci moom te wala yemilu te du jàng an walis ko fastahwaana hoyofal ñu mooy neex ci ñun ak samaru ngoonaar gi hmm. ilaan xaraba ba suux hmm. alxamaru weer wi hmm. waxala ba tenot ak saharu waxtaan wi nekk nañ ca ba weer wi dugg mel ni gëmmen du sax defuñu ko wala maara waqa ba yoree lëndëmam allaylu guddi albahimu gudaaji ñuul ba lëndëm gi dikkee nag te affaire bi leer gi la mën a àndal hmm. xanaa dem tëddi moo des hmm. walam yabqa te desut hmm. ila tahwi mu ndara jeexu bi la dem dikkee nag mel ni cawartande gi jeex na ni ñaa ngi jeexu bëgg nelaw samiana dégg nañu minal baabi ci buntu bi nab ata mustambihin yëmmuk aji sàkku baw istimba mooy yëngatu pour dawkat boobu hmm. nga xam fu buntu kër toll hmm. dégg nañ baat boobu hmm. nab ata mustam bihin yëm mukk aji bawlu mooy baatab aji baw baatab ku bëgg dawkat baw suñ dawkat bi baw mu xam fu suñ buntu kër toll dal di ñëw fëgg mooy summa talataa topp topp nab aba sëkkatu mustaftihin fëgg aji hubbilu wala ñu fëgg suñ bunt bi hmm. foqul naa ñu ni bañ déggee fëgg gi ñu ne man anakan hmm. almulim moo de aji wàcci hmm. fi layli ci guddi almudlahim mi gudaaji lëndëm guddi goo lëndëm taraf gile ana ku fee war a agsi waxtu ba ñu fëgg ne loolu lañ wax fa qaala waa dal di wax yaa ahla dal maghna waqitum sarra wala laqitum ma baqitum durra qad dafa'a laylu alladi faharra ila darakum sa'isan mughbarra axa sifarin tala wasbatarra حتى انثنى مقوقفا مصفرا مثل هلال الأفق حين ابترا waqad arafina akum muctarra wa amakum dunal anami turra yabgi xiram minkum wa mustaqarra wa dunakum dayfan xanuan hurra yarda bi mahlawla wa ma amarra wa yansani ankum yanussul birra mun yaa ahla zal magna ay yéen ñooñu wàccuwaay bii hmm. yéen ñi ne ci kër gile hmm. waqiitum yàlla na fegaleef leen sarran hay hmm. yàlla yàlla musal leen ci hay wala laqiitum te yàlla bu leen dajeet maa baqiitum fekk des ngeen duran lor te fekk yéen a dund yàlla bu leen dara jot wala laqiitum yàlla bu leen dajeet ma baqitum fi fi yéen a ngi def duran lor xat hmm. dafa jañ na allay lu guddi hmm. alladi ku xam ne ik faar lënkoon na lëndëmam hmm. mooy guddi gu def taras moo andi ilaa darakum jëm ci seen dingërë bi moo andi ci seen hëtt bi sangesan aji pagg mooy ku dox ba kawaram siiñ ndég sonn sens mooy fiñe kawar moo far moo baran daa pënd waaw koo xam ne dafay dox jëmm jaa ngi pënd kawar gaa ngi siiñ kooku da leen guddi gi andil axaa sifaarin kii boroomi tukki taala yooyu yàgg nañu yooyu yàgg na muy ko taala moom yàgg na ku yàgg ji tukki mu yàgg daal ci la nekk yàgg ji tumaranke was ba tarru te mu tàllalu te itam mu dox lu sore sori xattan sana ba mu wëññeeku moo xaw xifan daaji lun ci gannaaw gannaaw gi dafa xogg jëmm ji jeex musfarran daaji gel der bi furi waaw coono dox àgg na ci jëmmam feeñ na ci deram mislu hilalil ufq maanaam jeexital na ci jëmmam mm. jeexital ci daram mislu mm. hilalil ufq kem taru teel gox mm. xiina tarra waxtu wa muuñee gannaaw gi daal ni mu dëngee dafa mel ni weer wu teru ni muy dëngee waqarara gaar na mu fi naa akum seen dingëre moo tarran daaje xaar ñëw na nag ci seen dingare bi mm-hmm. nekk di ak gan mm-hmm. bu xam ne bëgg na ku ko dimbale mm-hmm. te moo tar yàlla digle na lehal ko wa atimul qaania wal mutarra wa amakum jublu na leen duunal anaami walis mbindeef yi turan bi muñ dem boole ak ku mën a dara ak ku mën a toll nen moom ci yen la a yàlla xeenale mm-hmm. kon yéen lay seen gan mm-hmm. waaw kon yéen lay seen gan mm-hmm. yabxi dana mu sàkku xiran ganale minkum ci yéen ku ko jox reer mu reer wa mustaqarran ak saxuwaay ku ko jox fu mu tëdd mu fanaan fa doonakum jàppaleen day fan gan xanuwaan guy doylu haakoon waran guri gor moom nag gan gu gore la mm-hmm. gu neexa dalal la mm-hmm. ndax lu mu fekkee njaatigam rek mm-hmm. loola doy na ko yardaa dana mu gërëm ci teggii gan la bokk moo tax waaw yardaa dana mu gërëm bi ma ci li nga xam ne ixlaw la neex na su bu fekkee lu neex bëgg na lu neex wama ak li nga xam ne amar la na su bu fekkee lu neexul xam ne lii la fi fekk rek wayan sa nii dana wëññeeku ankum walis leen yenu su mbirom dana mu tasaare albirra njekkale te itam su ngeen ko defalee lu baax moom sant kat la fu mu xaw li dee la wax su ko defee kaddu gi wane na ko qaala alxaaris ibnu hammaam xaalis nee na falamma xalabanaa ba mu ñu furujee bi odoo ba te nutqi ci neex ak tuddam kàddum yi ba ñu ci këfee waalim naa te ñu xam maa li nga xam ne wara abarq ne nekk na ci gannaaw melaxam nga xam ne kàddu yi am na lum wane ci moom ibtadar naa jëkkalante nañu fat xal baabi ubbi bunt bi dañoo jëkkalante bil ko bunt bi wa talaqaynaahu ñu tàcc ko bi tarxa ci tatagal ñu dal di ko tàcc di ko wax marhaban marhaban di ko yaatal bi tarxa bi ci tatagal ñaan ko marhaban marhaban <coughs> waqul naa ñu wax lil xulaami ñaal jaam bi ñu wax suñ jàmbi ne ko hayya hayya kaay kaay ayo gaawal gaawal mm-hmm. wa halumma andil maa li nga xam ne tahayya a teew na jàppandi mm-hmm. kem lu fi nin mën a indi ci lu rek mm-hmm. gaawal nga indi ko lañ wax fa qaala dal di wax a dayfu gan gi bu ko defee gan gi nag balaa wax na mu ne walladi giñ naa ci buur bi nga xam ne xàll ni wàcce na ma mm-hmm. darakum ci seen dingre bi laata mm-hmm. la mattu den may mos mm-hmm. bi xiraakum ci seen ngana léegi li ngeen may indil teg ci suma cat lammiñ sax nag duma ko def bëgguma ci dara aw tadmanu lu may ngeen warlu aw tadmanu la ñuy wax lii ñaxal ma allah tattaxidooni ba den ngeen dema jàpp mm. kallan maraaji diis wala te jasamo te du ngeen toggoo mm. li aj li ngir man mm. ak lan lekk da a war lu ne duma doon nit koo xam ne dangeen di sonn ci man rek de toggoo lu ngeen mënul kenn ci kenn ci yéen du warlu ne moom daf muy gunge hmm. ci lekk ndax man ma mën a lekk hmm. al ifraatu fil birri hmm. mujibun lil xajali wa maanihun min arrujuhi ba'da al infisali ah xam na noonu boo ko jëfandikoo ci gan dana mujj ceenewu dana mujj dal si fa jaaxal ko dana mujj dal fa jaaxal ko dégg nga ah, law ixtasartum min al ihsani surtout ku ngan gi bu ngeen ko xemale woon hmm. dikk fi dana yomb hmm. alaw ixtasartum min al ihsani surtout ku waaye hmm. léegi bu ngeen ko wutaloon xàpp kon dikk gi dana yomb waaye nag bu fekkee xamul àpp damay am kersa ci defi mokkal wal asbu yuhjaru bil ifraati fil xasari ndox mu neex asbu der gu tooy la du seen wu tooy der daal la wal asbu xaasa xat bu ma un xat bu ndox mu neex wal xat bu yuhjaru bil ifraati fil xasari xaa ak saat fil xasari xaa ak saat de xaa xalam xalam xaalaa ndox bu seddee sedd gu jéggi dayoo dana waral ñu far ko faroom bu wuti meneen waaw wal xat bu yuhjaru bil ifraati fil xasari ndox bu seddee sedd gu jéggi dayoo mën naa waral ñu romb ko wuti wuti wuti leneen waaw xam nga ne lii su demee ba àgg ci gi wóor na ko lii moom mënoo ko moom li am tëkkaluf rek la li am ay coono lay indi gannaawam yu bàyyee koo del si moom du ci sawarati du ci sawarati de waaw mooy man ma a teg loolu balaa ngeen di toggoo ci man loolu li ma leen di xamal mooy loolu moom buy moom sooy boo ngi ñi jéggalan wa tadmanu lu mooy ngeen warlu lii ñaal ma allah tattaxidooni hmm. bu den ngeen dema jàpp kallan ma daaji diis hmm. wala tajassamu te du ngeen toggoo li aj lii ngir man ak lan lekk hmm. rubba ak latin bari nab lekk xaadat boobu gotti na al akila aji lekk wa wu te mu xañ ko ma akila ay lekk da lekk te sa jëmm soxla wut ñam lor lay indi ni nga xamee ne jëmm soxla ñam nga bañ a lekk hmm. lor lay indi hmm. kon nag bëgg ma lekk hmm. tax a xam ne war la lekk lor googu man duma ko koy lekk wasarul adiyaf bi te ki xiis ci gan ñi nag man mooy ko xam ne saa ma togge na mu attaque di fa toggal te bokkul ci muruwaa bokkul ci adab itam hmm. nga nekk gan di sonnal njaati gi defal nii indi defal nii boo deful nii man nangam boo deful nii man nangam hmm. yooyu baaxul hmm. wa ada te lor al mudif aji ganale dem ba nekk loram gis na ko bu baax a baax nga ci mustatraf waaye yoo xam ne fa doon tukki xam kum gaa xam kum jaat kum xamanteet kooka daal da ko indil yàpp ak ñeex dem da ko wutali mburu hmm. ba mu demee xam mburu ma ba muy dikkal fekk mu lekk yàpp woon hmm. mu ne ah kon ma teg fi mburu ma duutali at ko ndawal bi mu ko boole ba muy dikkal fekk mu lekk mburu ma jokkee hmm. ne ko ah yow loo doon ndox ma ne ko ah man de damaa yëg wéré di ci sama yaram gu tax sama lekk wàññeeku moom lay faju ji ne ko ah boo dëppee ba fi jaar loolu tasara boo defee ba fi jaar ci gan man mooy ko xam ne saama togge na mu yaakaar naa ne daal wa maa fil masali ci léebu mm-hmm. alladi léebu mi nga xam ne saara dox na mm-hmm. saayiroo aji doxam mm-hmm. mu ne arab waxut ci léebu ne xayrul xasaa i sawaafiru xayrul gën ci reer sawaafiru mooy ay way teelam mooy way teelam reer ba ca gën mooy teel mooy lii arab waxu ko illaa li yu àjjala ndare ngir na gaawees attaas fi reer ndax nañ di gaaw a reer wuy tanaba ak na teeteer ak lu leyli lekk guddi allati lekk guddi mi nga xam ne yoon si dana bémpéen loo ak wattandeku lekk guddi ndax dafay waral naqadik bës naqadik gis wuy tanaba ak na teeteer ak lu lay lekk guddi allati lekk guddi mi nga xam ne eh, yoon si dana bémpenloo allahumma waaw ilaa antaqida ndare boog dafa tàkk naarul jooñe safaraaw xiif watta xoola te mu diggale doonal fu joox nelaw lu mooy nga xiif lool nag ba man laa nelaw konum da nga mën a lekk mm-hmm. danga nga mën a nelaw mm-hmm. ndax lor gi ci ñàkkaa nelaw guddi mm-hmm. moo gën a diis allahumma waawe laa taqira ndare boog dafa tàkk naarul joxe safaraaw xiif wataxool te muy diggale ngi ni jënga fa wa haddasa seyxu nubayhu diin aljawhari annahu samiha seyx al imaama hisu diin ibn abdisalaam yaqool inna muhawi a inna muhawiya tam na abi sufyan kaana yaakulu fi kulli yawmin mi'ata ridlin bi dimisqi wala yasfa kille mu ne wa nasala rajulun wa nasala rajulun bi sawmahati rahib rahibin fa qaddama ilayhi rahibu arbaata arqifatin da koy di ñeenti mburu wasaaba li yaxdira ilayhi alhadas pour lu mu ko booleet fa xamalahoo ba mu xamee wajaa fa wajadahoo qad akala alxubsa fa saaba fa ataa bi xubsin fa wajadahoo qad akala alhadasa fa faala maahu salik hasra maratin fa saalahu rahib ayna maqsaduka qaala ila al urdun qaala limaasa qaala balagani anna biha tabiban haadiqan asaluhu amma yasluhu mahidati fa inni qalilu sahwati li taam fa qaala lahu rahib inna li ilayka haajatan qaala wa ma hiya qaala ida sahabta wa aslahta mahidataka wala taga rujuhaka alayya kon wala ne fa kaat na fa daanaka moom ittala yëg na xalaa iradatina ci suñ coobare dafa mel daal li ci suñ xol yi moom la xam ndax ku nit ñun mu ngi naa man suñu suma bëgg a lekkal farama Moussa an xaw si aqidatina ci xalaat suñuy pas-pas mm-hmm. li ne woon ci suñuy xel daal mm-hmm. dafa mel ni loolu la ñu wax ne mooy soxla mm-hmm. laa jarama ci dëgg-dëgg amu sikk ne an naa ñun anas naahu wéttale nañu ko biltisaami sarti ci warlu sartaam waaw wéttale nañu ko toog ak moom rek waaye kenn jéemu da lekk ndeg moom nag waas nay naa te ñu tagg xalaa xuluq yi ci jikkoom asabte juraaji yomb neexaadab gim ñu wan nag mm-hmm. wattandeku lu ñuy sonal ak lu ñuy lore mm-hmm. loolu tax nañu kontaan ci moom wala maa axdara ba teewalee alxulaamu jaam bi mm-hmm. maa li nga xam ne raaja teew na ñam bi jàppandi ba mu ko indee moom jaam bi waas te mu taal bay na naa ci suñ diggante asiraaja lamp bi mu taal làmp bi taamaltuhoo settantal naa ko Fayiza ci mbetteel huwa moom Abu Seydin Abu Seydin la hmm. ndeke Abu Seydin la fa qultu ma wax li sax bii ñaar samay àndandoo ci laa waxee samay gaay yi ne leen li yahdikum na leen ndokkaloo hmm. addayfu gan alwaaridu gudaa ros hmm. kontaan leen ci seen gan tey gii bal li fi nekk almax na mu màng la albaridu guraaji sedd hmm. xammaa ngi te xarewu la hmm. maanaam masal la ci xewal goo sonneewu li hmm. xewal la gu xam ne da yàlla moo leen baaxee ngeen am ko rek ay sonn leen fa yëkkun bu nekkee afala di soo xamaru sienra biddiwu sienra fa xattalaa fenk na xamaru sienri kii weer ci wëy biddiwu sienra arab yi dañ ko fonkoon te ko jaamu alquran xam la ne am na borom waa na wóor a siara bi duba bu fenk bu soxee salaw kii weer ci wëy fenk na awi tasra wala awi tasarra wala nëbbu badru nasrati badru la faqat taballaja fenk na badru nasri weeru wisa adi pira ngi kati dëgg la science lu ngeen bëgg ci kitaaba mm. lu ngeen bëgg ci science mm. salaw man ngeen koo xam tey saa yu nab mi war nasri mm. fasara dal di royaat xumayal masarati tàngooru mbégte fiim ci ñoom nit ñi kenn ku nekk beesehaat yëgaat xol bu fireeku wataara dal di naaw asinatu gamentu xam ma aqihim wëlli seeni cati bët xam naa gëmmentoon leen doon tàmbalee roofu mm. waaye gëmmentu yee ñoom booba lañ dem mm. wala fa doo ñu fëgg a daxata tayal mm. allati gi nga xam ne kaanu nekkoon nañ na wow haa de ko yéene xanaa dem tëddi lañ fa soxoon waaye loolu moom génn nañ ci wasaaboo ñu dellu ila nasril fukahaati jëm ci firi bandama tawaxaa ci gannaaw buñ ko leemee demoon nañ bale balaf waxtaan wi waaye dellu nañ ko hubbi at waa bu saydin te abu saydin mu kibbun aji këpp la ala imal yadayhi ci liggéeyloo ñaari loxoom su ko defee nag gan gi nag mu ngi reer bu baax moom mu ngi lekk moom mu ngi reer bu baax mu kibbun aji këpp la ala imal yadayhi ci liggéeyloo ñaari loxoom xataa ida tarfaa ba mu yëkkatiloo maa li nga xam la day nekk na fa moom ba mu lekkee ba pare def yi topp ci lekk mm-hmm. ba ñëw toog mm-hmm. boo xulaam bi ne kon man ngaa dem nga jëli lekkukaay ba xultu mm-hmm. wax naa la woo ñaal ko dama ne ko atrif naa may ñu ko bi xaribatin ci aji tumaranke min xarayi bi asmarika ci way tumurankee sa ngonaar aw ajibatin walla kiiman min ajaay bi asfarika ci kiiman yi say tukki ne bëggoon nga defal ñu maye nga jox ñu benn tarifa waaw ci taraif yi nga xam ne danga koy joxe ci say waxtaan donte du loo gisit maye la rek wala comme yow doxkat nga borom xel nga bëri na looy gis waaw yi nga gis li nga xam ne yéeme na baax na xam moom lu ci nettali la ko wax fa qaala mu ni mm-hmm. laqad balawtu nattu naa min ajaa'ibi ci kiimaan mm-hmm. maa lu xam ne lam yarawoo gisu ko mm-hmm. arraawna way gis yi ru'yatu mooy lismu bi wala rawahu soloohu ko nettaliwu ko arraawna way soloo yi riwaaya mooy lismu bi li ma gis day ah bëri ku dox te gisu la ko de bëri na ku waxtaan te nekk li la ko de ah ndax kéemaan yoo xam ne day kenn mosu leen ko nekk de kenn dox ba gis wa inna min ajabiha bokk na ci li ci gën a yéeme nag maa loo xam ne hayantoo jàkkaarloo naa ak moom allay la te guddik tey gi li ci gën a yéeme nag ci guddik tey gi la ko gis xubayla mm-hmm. intiyaabikum mm-hmm. mm-hmm. ci njëkk sama gaar si leen ci njëkk may xeg si ci yéen bat bi xam na lu ci ñuy def naqadu wax hariri yi waaw ah, ba fi intiyaab bi ma ne ñuy def naqadu xam na luñ ci wax waaw ah. wa masir yi ak sama mujj ilaa baabikum jëm ci seen bunt bi loo xam ne guddi tey gii la ba mu wéere sin tuuti laa xeg si ci dënk xaalis nee na fastaxbarnaahu ñu laaj ko an turfati mar'ahu ci taarab gisam fi masrahi masra ci waru waay reñaanam ñu ne ko loolu lum da fa qaal mu ne ma mu ne inna maramiyal xurbati sànni waayu tumaranke lafaxat ni sànni woon nañ ma ila hadihi turbati jëm ci file suuf te hmm. eh, nit ñaa ngi jàngit may ñu ah nga may ñu ah inna maramiyal xurbati hmm. sànni waay tumaranke hmm. lafatat nii sànni na ma ila hadihi turbati jëm ci sele suuf mu ne man de dox moo ma fi andi dama fi ñëw nag wa ana te man zuuma wa buusa ak weñ dama ñëw ci dëkk boobu ko wa jirabin ak gafaka kafuwaat ummi Moussa bu mel ni xolab yaay yeneen teel Moussa mooy yóbbal bu jeex takk sama gafaka dafa féex ba mel ni xolab fuwaat ummi Moussa ci ba asbaafuwaadu ummi Musa fariqa mm-hmm. bi alquran di wax mm-hmm. fa naatuma buur xiina mm-hmm. sajaa waxtu wa dalee adduja lëndëm gi ala ma ànd li nga xam ne bi nekk nañ ci man minal waja ci tañ ma buur bi lëndëm gi defee taras doon sama tànk yaa ngi métti ngi ataada ngir na gub mooy ngir na sakku mu di fan aji ganale ndax ma dajee ku ma jox ma lekk aw aqtaada walla ma xomat rasifan mburu walla ma am xewal ak ñam boobu daal na ma def ba lekk daal fa saxani màng ma xaadi saxe bi aji màng ja moom xiif la wal qada ak dogal al mukkan naa bare buñ kun yaalee abal ajab bi abul ajab borom kéemaan ilaa an waqaftu ba ma taxaw hmm. ala baabi daarin ci bunta kër hmm. fa qultu ma wax ala bi daarin ci jàkkalante hmm. xiif moo ma hen ci may dox ba ma àgg ci buntu kër dal di wax ci lu benn xelaat ne xuyitumu ya ahla hada almanzili wa estumu fi xabdi aysin xadili maa indakum libni sabilin murmili hmm. netwi suran xabiti laylin alyali hmm. jawil asa ala tawa mustamili hmm. mada xamut yowmani taama makkali wala lahu fi ardikum min mawili wa qad jaa junhu dalamin musbili wa huwa min alxayrati fi tamalmuli fa hada fahal bi hada rami adbul manhali yaqulu li alqi asaka wadxuli wabsar bi bisrin wa qiran muajjali mu ne xuyitum na yóof na leen yaa ahla hada almanzili yéen ñooñ bile wàcci waay yéen a moom na yóof waaye stum yàlla na ngeen dundu fi nga xab di aysin ci naat ak dund xadi hmm. leen daa ji na hmm. yal na ngeen dund dund bu neex hmm. maa ana lan xende ko moo lim ne sa ñaal ku tumaranke murmilin ku daa ji faggu ana lu ngeen mënal ku tumaranke ku yóbbalam jiya nit wi suran ku daa ji rañaan ku daa ji songo ngir rañaan xabite laylin kuraaji dajjitu guddi hmm. aliyeru kuraaji lëndëm hmm. Hmm. kuy dox guddi gu lëndëm jawil hasa kuraaji métti ci baljat mustamilin kuraaji lambo ala tawaaji xiir xam ne maasaaka mos da mos mosul taama markalin cap kaak ñam mus yamaani diiru ñaari fan wala la hoo ñaalu ko itam min mawilin benn wéeruwaay fi ardikum ci seen suuf si ku xiif la ku sonn la te am benn njëriñ mm. wa qad jaati kukku na ca junoo dalaame mbaggam la ndëm gi mm. al musbil mu daa ji yooree mm. te la ndëma guddi gi dikk na wa huwa te moom min al xayrati ngir gëlëm gim gëlëm fii tamal mu li mu ngi ci bàddara ñeeku mënul toog xamul fu muy xaw faal bi hada rame ndax nekk na ci bile wàccuwaay mm. abdul manhali aji neex ci rootuwaay mm. yaqulu kub dana wax lii ñaal ma mm. ne ma alqisannil asaka saxeet bi mooy ñëwal dal fi ilqaul asa kinayetun anil iqamati e tegtale sax ñëwal dal fi wadduxul te nga tabbi wabsar te nga bégee bisrin ci tàlli xarkanam wakiran ak nganale mu ajjalin gëri gu ñu gaawee hmm. dama fi ñëw yoruma dara hmm. te xiif sonn torop hmm. loolu tax may dox ba taxaw ci bunta kër wax wa tontu ba ne insha allah dina ñëw suba ak la ca topp bu pare danga gis ne mbir mi naqarax ne waaw baax abu saydin ne fa barasa daldi génn ilaye jëm ci man hmm. jawdarun xale su mel ni cëll si njaaxal la hmm. mu ne as ngune soo rafet moo génn hmm. bi ma waxee lii xale yi ku nekk na ci moom sawdarun as foxaya muy mbuusoo tuuti as mbuusoo tuuti ñoo solal gune ci la sol benn waqaala mu wax gune ki mooma tontu siarun waye ngi nii dafa wax ne wa hurmati sheikh alladi sanna alqira hmm. wa assasa almahjuja fi ummi alqura hmm. ma indana li tariqin ida ara hmm. siwa alhadisi walmunaaxi fi dara wa kayfa yaqri man nafa anhu alkara tawan bara azumahu laman bara fama tara fi ma dakartu ma tara mu ne wa hurmati sheikh giñ naa ci hormaay góor ga alladi ga nga xam ne san na yoonal na mu alqiraa ganale te mooy suñ bay ibrahim ci moom lañ royee taral gan mu ne mu ngi giñ ci hormaay góor góogale wa asasa te mu fondement almahjooje néeg ba ñuy haj fi ummil qura ci makka góor googa xam ne moo fondement woon kaaba gi moom ak doomam ngi giñ ci hormaay kooku ne maa hen danaa nekkul fi ñun li taariqin ñaal aji fëgg mooy gan gu bette isaara bu garsee ñun de gan gu ñu bett fi ne xamul dara luñ koy defal si wal hadis ne ndare waxtaan xanaa waxtaanal ko wal mu naaxi ak yësuwaay fi saraay ci dingre bi ak may ko fu mu toog ak fu mu teg bagaas loolu de mu ngi fi wa naka lay ganalee man ku xam ne nafa dàq na an walit ko mm-hmm. alkara gëmmintu mm-hmm. tawan xiif bara bu xett na mu mm-hmm. azuma wa ay yaxam lama bara bu mu gaare koo xam ne xiifa ko taxa làpp bu la diggee jox la ñam itam amul lum la jox te nag bëgguñu laa wax luñ dul def mën nañ la yaatal nag may la cëlmaay bokk yow toog ñu waxtaan wa keefa yàqari naka lay ganale man ko xam ne dana xiiba ko tey nelaw nafa dàq na alkara gëmmentu anu walis ko lu dàq gëmmentu yi xanaa tawan xiif mooy fayel nafa bara boobu xet nangu asuma wa ay yaxam bara ba mu gaare waaye ma tara loo gis nag fii maa ci li xam ne Dakar tu tudd naa ko ah, ma tara loo gis nag noo ko su fekkee waxtaan doy na la nga ñëw dana fi late su fekkee nga bëgg waxtaan na fi am yaa xam na d'accord d'accord xam na Abu Seydi na ko fa qultu ma ne ko ah maa as lu may def bi ma silin ci wàcc waaye xafrin bu dee aji mu ne ko man damay wut lu may toog fu dara newul man wut laa de def naka lay demee di toog fu dara newul lu ma fay def wa mansilin ak wa munsilin ak aji ganale xil fi faqrin ku daa ji te koo man ku ma dimbale ma xeetle ku ci xat-xat bi laa bëgg naka laa di wéedoo ci ku ma tanewul ah ni ma gis koy xam nga lu may toog ma asdawa lu may def lu mansilin ci wàccu waaye xafrin ku daa ji wéet wa munsilin ak aji ganale xil fi faqrin ku daa ji te koo waaw li ko tax a jóg la xam rek dafa way trop gannaaw da way wax dëgg yàlla te ku way la li ko tax a jóg la xam rek walakin waaye nag yaa fata ya waaji masmuka ni sa tur waaw na tur nag xale bi faqat fatana nii final na ma fahmuka sa dégg gi man kat dag maa xëlam ah koo fajago dara gën a mag ñi faqat fatanani fi naan na fa mu kasa dégg man nga damay yëngu ci yow di fa qaala mu ne ma ismi sama tur Seydun mu ne ma man de Seydun laa tudd xam nga Abu Seydi nay wax mbaalu doomam yee man de Seydu laa tudd wa man so i sama sosuwaay faydu faydu la maa ngi bokk faydu wa dikk naa haadihil madarasa dëkk bi am si démb maa axwaali ànd ak samay nijaay même bani absin ci banu absin fii démb laa fi ñëw man ak samay nijaay banu absin ñooy samay nijaay banu absin nag mayoon nañ abu seydin jabar abu seydin ne fa qultuma wax la woo ñaal ko ma ne ko zidni dolli ma idaahan ci leeral idaahan leeral hesta yal na nga dund wanu hesta te yëkkateef la te yàlla na la yëkkateef ma ne ko ah doom dund ak jàmm dolli ma ci waxtaan ma gën lay xam bo fa qaala gune gi nee ma axbarat nii xamal na ma ummi sama yaay barratu mbaaxi sama yaay soxna su tudd barra la moo ma waxal waaye te moom barratun aji baax la kasum yaa ni ki turam lim tudd nag moo dëppoog aw melokaanam dafa ma waxoon ne annaha naka moom naka ha sëyaloon na amal xaara ci amul xaara xew-xew la bu siiw bu yàgg bi maawaana ci maawaan ab barab la rajulan ak a góor min sarati saruuja gu bokk ci sangi sarooji waxas saada ak xassaan daf ma wax ne xew-xew boobu ñuy wax amul xaara hmm. boo fu ñuy wax maawaan la ko fekk hmm. booba nag ak a góor hmm. gu bokk ci sangi sarooj yi moo ko doon denc de borom këram waa ah, naka xat sa yelloon na amal xaara te ci amal xaara maawaan ci maawaan rajulan ak a góor min sarate saroja bokk sangi saroji wa xasaana ak xasaan falamma anasa ba góor ga yégee nag min ha ci sama yaay alis xaala diir wa kaana te nekkoon na moom góor gi baaqi atan daa jommale alaamaa ci li nga xam ne yu dem na ko wax mu ne nag bañ nekkee ba mel ni doom sosu na seen diggante soxna si jëlee na ci moom dara te xam naa góor gi comme niñ ko waxee ni teg pexe la ata xanaa laxas na xanaa walit ko sirran ci dëbbu benn bis rek la góor gi ni yereñ xamatu ci moom dara ba léegi nag ba bisu tey bii nag kenn tane wala ci góor fa ba yoon refu xameesul yoon ndax aji dund la huwa góor gi hmm. fa yu tawaqaw mu ñëndegoos ko am audience wala dénkees na ko moom góor gi hmm. allah dallaat balqa bu daa ji hmm. moom nag xamul ndax góor gaa ngi dundam déet ni ko noonu mu toog ko xaar rek xam ne ku tukki la incha allah dana ñëw wala góor gi génn naa dina su ma yaay daal bi may wax sama askan li na dafa ma ne góor gu bokk ci sangi saroo ji nekk gàllawaar bokk ci xasaan moo des sa bàyyi maa ngi nekkoon ak moom ci fu ñuy wax maawaan caamul xaara ba nga xamee ne nag xew nga suñu diggante nag la fi bàyyeekoo ne yareñ ah booba ba tey tane ma ci kenn xam nga dund xam nga ku jabaram xam mu yollee ku dem xamuñ ci moom dara dara dara dara dara ba xale bi juddu ba ràññeeku mu dajee xale bi da xam ne xale bi doomam la léegi doom jéego ne man Seydun laa tudd xanaa fa bartale woon tur xanaa bu bàttale woon turu su fekkee bàttale wu doon turu wa dey ah lamb ji luxu sëg dafay dafay luxu sëg di ah dafay luxu sëg di ah xaala abu seydin abu seydin ne ee faalimtu ma xamee bi sihatil alaamaati ci biir rek mandarga yi ne annahu naka moom waladi sama doom la ma xam ne sama doom la ndég màndarga yu leer yi ma jox nii wa sadafa nii tere ma xani taarufi walis xàmmeeku ilayhi jëm ci moom safar yeddi fii ak sama loxo waaye boo mënu mu ko wax na ko maari góor ga te du ma teg dara ci loxoom te xaw ma dara lu ma ko jox wa sadafani tere ma ani taarufi walis xàmmeeku ilayhi jëm ci moom safaru yeddi féexis sama loxo fa fasaltu ma facc an walis ko ma jox ko gannaaw bi kabit bi kabidin kabit la ba bi kabit la waaw waaw bi kabidin ci ref mabdudatin wade wu ñu toj wa dumoxen ak i rongañ mabdudatin yade yu ñu tasaare ma jox ko gannaaw ak xol bu métti ak bëri yu sotti rongañ waaw ma jox ko gannaaw ak xol bu métti ak bëri yu sotti rongañ bi kabidin ci res mabdudatin wade wu ñu toj wa dumoxen ak i rongañ mabdudatin yade yu ñu tasaare fa samiatum ndax dégg ngeen yaa ulil albaab yéen borom xel yi bi ajaba ci lu gën a yéeme min hadal ajab ci kéemaan bi est-ce que dégg ngeen lu gën a yéeme li walaa sanul misri ma dama dajeeg nen ne ko kayfa asbaxta waaye dootuma ko def dama ko laaj nu mu xëyee mu limal ma ay jaar jaaram ba ma far sonn ca moom te laajte baa ko def waaye ñi dese laajte waaw kon laa ñu ne ko laa diiréet ba man giñ nañ ko ci buur bi nga xam ne xen dafa nekk na fa mu elmul kitaab bi xam-xamu téere yi ñu ne ko liggéey gisuñ lu ko gën a yéem fa qaala mu ne asbituha saxal leen ko fi ajaayibil ittifaaqi ci kéemaani dëppoo yi kon man ngeen ko boole ci dajjal yu héeme yi mm-hmm. waxal li dooha te ngeen belal ko mm-hmm. butunal awraaq ci biir kayit yi te ngeen bind ko mm-hmm. fama suyira doxaleeful misloha kemam fil afaqi ci gox ndax bëri lu waaye sayu di ko nettalee da ca dajale nit ñi da leen ca téye doxul lu hitteel comme bi naadira bu mel nii mu leen ko fekk ah ah bëgg a jàng ah demal waaw fa adar ñu teewal addawaata daha ji waasaabi daha ak i jumtukaayam ñu indi daha ji wala xas naa ñi boyaade alxikaayata nettali bi ala masara daha ca nam ko toflante ñu dal di bind nettali bi comme nam ko bindee comme nam ko waxee su ma tabtan naahu topp ñu sàkku baatinam mooy ñu laaj ko an murtaahu ci xilaatam fistit maami fataahu ci tàpp doomam di ne ko waaw léegi xale boobu nga gis muy sa doom nga gis sa xalaat nag xalaat dafa bàyyi ne rek ko mel noonu moom ko di ko bàyyi itam fa qaala ne ida saqula bu diisee rub nii sama loxol mbub mooy sama poos xab ko xooyof ma la yee ci man ànd ak fula ba ma yar ak nii sama kam waaw boo gisee ma bàyyi ko ba ñàkk lu ma ko yoree rek su ma lu ma ko yoree kay amee du jafe waaye su ne fa naa ñu ko inkaana bu nekk yeg fii que de doy nisaabu nisaab min al maliki halal hmm. allam ndaaw ñu dajale ko hmm. lakk ñu àll bi xaali ci waxtu wi hmm. ne ko kem nisaab de boo ko xeebut ñun mën nañ la ko topp tool fii kem nisaab boo ko xeebut fa qaal mu ne wa kayfa la yuqniuni naka la may ñàkkaa doyee nisaabu nisaab waal yaxtaqiru du xeeb qadrahu daraja nisab kem nisab illa musab ndare ku ñuy jinnee nisab bu ñu la may rek xanaa loolu dafa koy xeeb qaala arrawi qaala wax na arrawi aji solo ji te mooy xaaris mu ne faltasama dal di warlu min wu ci nisab ba kullun képp min naa ci nun xistan cir kenn ku nekk xam lu mu fu ñu dajee la rek ñu ñoo xaalis wa kataba mu bindal la hoo ñaal ko bii ci nisab bi xittan bon bind kayit jox bu suba buñ dajee ba mu tàllalee kayit bi mu xam ne yow naa diggoon lii bii mu jox kenn ku ne la jëf naa tegu fa sa karab mu sant henda taalika ca foofale ak sunaa njekk la mu wax waxi sant lool ci teraanga ji ñu ko defal wastan fada mu jeexal fi sunaa yi ci tagg al wusan kattan sala daal lii tagg yu rafet ci sant dem na xata inna naa ba ñun sax istatal naa gudd lu nañ al qawla wax ji wastaqlal naa te ñu ak taw may gi ñun dañ doon bëgg a am kersa sax ndax kem ni mu santee dafa ëpp ñun ci kem liñ ko defal liñ ci leen lu nañ alxawla wax ji wastaqalal te ñu néewlu ak taw la may gi summa innahu topp moom nasara firi na min wasi samari ci ay njami ngoonaar ma ay taari waxtaani ngoon maa lu xam ne asra xeeb na mu hmm. bil xibari ci ay malaani ngémmiñal hmm. mu kontine dañuy waxtaanal hmm. waxtaan yoo xam ne foo ko natt ci rafet rek romb na ko asra xeeb na bil xibari ci malaani ngémmiñal ilaan adal la ba jot attan wiiru leeral wajasara te hu ñeegu asufu suba almunir gu daaji leeral ñoom moom bële ndama guddi jeex mhm. la rek suba gi dikk si fa qadaynaaha ñu jeexal ko mhm. laylatan muy guddi mhm. goo xam ne xaabat faddu sawa ibuha ay way jaxasoo am ilaan saabat ba bejjaaw sawa ibuha ay jubam ñu jeexal ko mu nekk guddi goo xam ne sallaw min mahdiha ila lahdiha yëpp kontante na min awaliha ila axiriha min bidayatiha ila nihayatiha wa kamula te mat sooduha texeem ilaa nim fataha baqar sooduha bantam guddi la goo xam lépp saada la wala maa darra ba bëbbee mooy ba penkee xarnul xasalati jeeneeri jant bi bi jeeneeri jant bi commencé génn tamara tëb na tumural xasalati kem tëbëg koj biir dafa tëb pam doonu koj biir waqaal mu ne inhat buural binaa ak ñun li naq bi da ngir nañu jàppi asilati may yi aywa nañ dem toppatoo ji digg yi ñu waxoon ne dañ moo ko jox. Mm-hmm. naq bi da ngeen nañu jàpp ak filaati may yi. Mm-hmm. wanastanida ak ñu teewlu. Mm-hmm. al ihalaati daal yi. léegi dama bëgg ñu jóg dem ci gaa ah, kenn ku nekk joxe la mu waxoon. faqad istataara naaw na. su doon këbi di tojjiti sama reef. min al xanin ngir bindi. ilaa wala di jëm ci sama doom. ah dama ne mu sama lool. te daal lu waqad istatara naaw na su doon al toji di sama res mu ne xani binni ilaa wala di jëm ci sama doom fa wasaltu ma jokke janaahoo mbagam mbaggam xatta sa naytu ba ma yombal najaahoo fajug haajoom mooy ma nekk ndimbalam fa yii ahrasa waxtu wam làqee alxay na kaxe gi fii surratihi ci këmbukaayam maa ngi moom ba soxlaam faju bañ ko joxe xaalis bi ba mu denc ko bara xat mel xat masarati rasa si mbégteem seulement de dafa firéegu comme quoi am xew waqaala mu wax lii mu ne ma jisita yàlla na fayas la xeyran xiw an xuta xadamayka ci jéegoy sa ñaari ndëgg wallaahu yàlla xalifati mooy sama kuutul alayka ci yow kon yàlla fay la ci taxawaay bi kon baax na yàlla na fi yàlla wut yàlla na fi jàmm wutu na fi jàmm wutu tàggoo fa qultum ma ne ko uridu dama namu an attabiaka ba ma toppat la li usaahida ngir naa gis wala dakka sa doom an najiba jure aji tedd woo naa fi sawa ak ma waxanteeg moom hmm. li kay yu jiiba ngir na hayu hmm. mu ne ko xam nga nit bu fekkee danga ko bëgg hmm. ah da nga bëggaale lam xam subaa cëxal googu sopp la day àgg ci sa doom moo tax gannaaw nii la jegee daal ah bëggoon naa koo gis bëggoon naa déggee ci moom dara itam kon buñ tàggoogum nañ dem ba foofu uri danaa nam ala tabiha ko ma toppat la li usahida ngir naa gis wala daka sa doom am na jiiba judaa ji tedd wu naa fi soo ak ma waqanteeg moom di kayu jiiba na xëyu ngir na tontu fan nadara mu xool ilee jëm ci man nadratal xaadimi xool ak aji huruj el doon jëm ci kuñ huruj mu xool mu bëti naa naa wa daxika mu ree muy ree rek hatta taxar xarat ba xooj moo la taw ñaari nag yi bëtam bi du mooy ci rongo yi mu reyaaree bu bëri di génne rongo yi waa mu sadd wayi yaa man tadanna saraba maan mm-hmm. lamma rawaytu alladi rawaytu ba mu àgg yaa man yow mi nga xam ne tadannaa jortu na mu mm-hmm. asaraba njoonur maan muy ndox a ji neex rek nga foog ne dëgg la mm-hmm. lama rawaytu ba ma solooxee alladi li nga xam ne rawaytu solo naa ko nga xam ba ma nettalee rek yow da ngaa daal di dogoo dogu man maa xiltu jortuhu ma woon ay yastasir rabbu nabbuwa mag di sama pexe man foogoo naa ne pexe mi xam ngeen ko waaye yoxii la ak bu lëntët alladi li nga xam ne anaytu jublu naa ko foogoo naa ne ma nekk xam ngeen wallaay gis naa ci yàlla maa baratun dégg menn mbaaxe bien assis de sama jabar de maanaam ma jabar joo tudd mbaaxe de walla lii ñaaluma it im nun jenn doom ik tanay tu joj kon yëgoonaa bii ci moom doom ju tudd Seydun tax ñu naan ma abu Seydin loolu xama ko de wa innama lii ñaal nama fu noonu sihrin ay fànni njeebeeri wax mooy ay fànni wax yu fasaha <laughs> ab daxtu yooyu dikkee na ak kéemaan fiyaa ci ñoom ba <laughs> maxtatay sub sara yow ma ko ci kenn <laughs> li am mooy dama manoore nekk mutafannin di andi ay moddi wax yoo xam ne du ma ko jëlee ci kenn xamuñ ko man seen jiitu wa innama lii ñaal na wax noonu sihrin ay fànni wax ab dànk yooyu dikkee naa fi yaa ci ñoom dikkee naa kéemaan fi yaa ci ñoom mooy maa ko fent ba ma ba maxta day tura yow mu ci kenn lam yëkki aa nettali wut leen al asmaayu asmaay fii maa hakkaa ci lim nettali asmaay mooy abdul malik ibnu quraybin mu ngi doon dund ci dawlatul abbasiya moom ak Mansour maami Haruna Rashid hmm. ñoo xaw a jamono hante hmm. ku xam-xam luga arabiya la hmm. ku xam ayaamul arabi la ku xam wuyi arabi la ku xam seeni nawaadir la bari na lu ñuy nettali te ci moom la cosaanoo mu ne sàlla alasmaa yi moomu lim nettali ci ayaamul arabi wa asaaruha wa nawaadiruha sàlla doo ko li ma li ma andi bokku ci lam net li de wala hakaha rabbut leer al kumaytu kumaytu kumaytu saayar la ci dawlatul amawiya moom nag siyen yu la moom ak faras dëq ñoo jamono hante mooy woy hasimiyat hasimiyat xasaayid yi ñu hasimiyat yi muy taggee ba noo hasimiyat hasimiyat al kumayti moo ko way ku ràññee la lool ci bëgg alu nabi sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa leen wuslatan ñuy jottale ko waay illaa ma jëm ci li nga xam ne taj nii dana ko witt këppi sama tënk matas taaytu waxtu ma foytoo muy fànn yoo xam ne lu may fajee sama soxla la ci laa di bi wala temps fay taxa su ma leen siboon su ma fi nekkoon de el la ma caaxamee naan yenn wuti ni nangam yenn wuti ni nangam konoon la xaalat jàllal be ko xaali mbir kon suma mbir ni nga gis muy doxee ni du ko doxee dama doon tumaranke lool wala ma xawi du ma laq maa xawet li ma laq ni ko li ngeen ma jox nii du ngeen ma ko man dama am ay pexe rek mm-hmm. man daja dund mm-hmm. nit nag man da ñàkk dund mm-hmm. la moo def ndig dundeeku du ko ko jàppee ne ko mahit nanga lal alors feebare nga ngàntal ma nit mu ñàkk dund su la moo def ndég na dundee ndég na dund dul xaw jër jàppee ko aw fa saa meex walla rek nga jéggal ma rek in kuntu bu ma nekkee ajramtu de aw janaytu wala ma tooñ wala amoon naa lu dox sama digganteeg tappale li hmm. yow sa gis hmm. pour man man da jag kon nga baal suma innawoo topp moom waddaani tàggu wi bolu ma tàggu dem waaw te mu dénk xal bi sama xol jamral xadaa xalu xadaa xadaa garab la gu neex tàkkat dañ jaar kon ñu jàng loolu ba beneen incha allah